alentouru stade bi bi ñu ko fay def ñu bëri dañu doon bañ ne arène nationale bëgguñu ko Pikine tey jii nii ñoo ñu doon wax loolu bu ñu gisee yu mel nii dinañu yey te làmb sport noble la ñi koy seetaan ay noble lañ mbëri ay noble lañ tey Modou Lo Ama Baldé fu ñu génn ci réew mi ñu xam ne ñii ñooy Modou Lo Ama te lool làmb moo leen ko may beneen bi aussi ñuy wax ne que tey soxla nañu ci alentour stade bi benn tey ji poste de police boo xamante ni police centrale lay ne parce que tey Pikine boo xoolee lu toll ci 1 million 800 d' habitants moo fa nekk le fait tey ñuy basé wu ci géejawaay loolu du yoon war na am tey poste de centrale police centrale boo xam ne day nekk ci côté arène bi pour mën a yokk sécurité arène bi loolu aussi ñu ngi koy déclaré ki nga xamante tey mooy la président Macky Sall di ko déclaré préfet di ko déclaré autorité yi nga xamante ni aussi tamit ñoo nekk Pikine parce que tey yaakaar naa alentour boobu noonu li may wax chaque jour rek bi ñu fay def arène bi dañ doon bañ tey ñu ñëw def fa arène bi parce que jam ñaajo lañ doon wax nañ ko fa yóbbu ñu indi ko arène bi indi ko Pikine kon yoon la tey bu ñu fa làmb di am ñu nekk ñoom ci ay sécurité yu baax mais làmb day am ñu tëj seen ay kër ñii di dem di lendu ci seen ay yeneen kër morom ñii bu làmb amee du ñu nelaw loolu du yoon encore une fois làmb sport noble la ñi koy seetaan ay noble la ñi koy bëre ay noble lañ kon accompagnement mbër yi nga xam ne ñooy yàq événement yi di yàq làmb yi te du mujj fenn na ci yoon jël ay mesures rawatina nag promoteur bi organiser journée bi ci wàllum ba tey ci wàllum sécurité bi gis nañ ni combat bu amee saa saa su amee pratiquement ñu bëri dañuy tiit rawatina ñi dëkk ci alentour stade beeg wala ñi dëkk fi yoon bi mbër yi di jaar ak ñoomin seen donc loolu pour yow lan lañ ci mën a def ba ba ba mu deñ waaw li ci war a def bañ ba mu deñ bokk na ci tey ñaari mbër yi man jàpp naa ni police war na leen mën a accompagner bu ñuy génn seen kër ñu indi leen ba ci biir stade bi parce que am na benn signature contrat boo xam ne amoon na arène nationale tey bi Modou Lo di ñëw ba ci yoon bi ay xeer lañ ko dogaale ba dafa mujj tourné léegi tey ñu doon xaar signature Ama Baldé Modou Lô mujj ñu seetaan loolu Ama Baldé rek moo yegg si tey loolu est-ce que mënuñu ko xaar ci combat bi kon jàpp naa ni war nañ mën tey boole Modou ak poste de police boo xam ne dama koy accompagner jëlee ko parcelle indi ko ci biir stade bi Ama Baldé la même chose pour que tey ñi nga xam dañuy jóg pour yàq événement bi ñu maanaam ñu mën leen canaliser benn beneen bi aussi tamit bokk na ci région de sécurité moo ñu ut ay stagiaires stadiers yoo xam dañu leen di dugal ci biir tribune bi ñu won tribune bi ginnaaw di surveiller ñi nga xamante ni ñoo ñëw ci stade bi parce que tey am na ñoo xam ni mën nañ ñëw te làmb taxu leen jóg yàq événement moo tax a jóg ndax des fois da gis làmb mbër ñu daan sa daan sax nga kontaan damm siège sànni loolu violence boobu noonu dafa war a jóg ci làmb te ñi koy def dañu ñëw pour yàq làmb ji ñëw pour saboter image làmb léegi loolu nag ñooñu li mu leen jaral pour ñu yàq ko ñun ñi moom làmb ji ay mbër di ci bëree CNG bi ne fi ñoom it na leen jaral ñu def loolu noonu beneen bi mooy côté sonorisation bi ñu ngi alerté aussi tamit euh, le CNG ñu jël ci ay mesures ñun amateurs yi am nañ doléance doléance bi mooy stade bu toll ni arène nationale amul benn benn benn benn tey jii mën la sumbaay benn directeur bu fa nekk bu ko mën a gérer amul tey jii nii dara loo xamante ne tey jii nii teg nañ ko fa lu mën a gérer stade bi stade bi boo xoolee toilette yi commencé na yàqu éclairage bi leeratul ñaari projecteur bi ñooy tàkk bi benn côté bi sonorisation bi leeratul chaise yi nga xamante ni yenn booy yi genn wàll chaise yëpp damm nañ ko yooyu yëpp ay problème la yu nekk ci stade bi am na ay tuyaux yu fa nekk ay régool yoo xam ñu ngi ball di tuuru si ginnaaw ci côté parking bi parking bi amul sécurité nan nga mën a dagee sa biir cinquante mille francs pour loge nga ñëw gaare sa oto ñu lay dagaloo waat ticket pour garder oto mais stade dafa war am sécurité léegi loolu lépp tey jii nii maanaam moo lay wan stade bi amul léegi nag ñun amateurs yi ñu ngi réclamer ñu jox ñu stade bi ñu gérer ko pour que tey jii nii yi nga xamante ne ñu ngi fay xew yépp di ay jafe-jafe ñu mën ci jël ay mesures beneen bi aussi tamit mooy CNG bi nga xamante ne tey ñoo fi nekk di liggéey ci làmb gis nañ seen taxawaay def nañ bilan bërki démb samedi mu nekk bilan boo xamante ni bilan bu positif la ngi leen di encourager ci seen liggéey di leen wax ne leen état gën a jàppale ay moyens tey jii nii gis nañ ne que ni tey ministre des sports euh, suñu euh, ministre bi nga xamante ne mooy Amadou Ba moo ko yor mais jàpp nañ ne tey jii nii am na manquement yu bari yoo xam ne des na ak ci côté làmb ñu bëgg ñu gën ñu ci jàppale pour que tey jii ñu mën egg yegg fi ñu jëm parce que euh, ñi nga xamante ni ñooy CNG bi ñu ngi liggéey ñu ngi def seen kéemtalaay kattan ren boo xoolee saison bi dem na ba le 27 août te saison bi mu ngi daan tëj le 31 juillet ren mu dem ba le 27 août ci biir nawet bi mais terewul fexe nañ ba journée yi nga xam amoon nañ problème moment yi dëkk bi amee incident yëpp ñu gérer ko tey jii nii loolu kon sant yàlla la kon ñu ngi leen di ñaanal seen liggéey gën a rafet di nuyuwaale le président Bira di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm.